juróom benn fukk ak juróom ñett almasi bi di musalkatu àddina si ko mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci leen nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ba fi nu toll ci gëstu bi ñuy def ci lim jil bu sell bi gisoon nanu ne almasi bi yéesu kenn rekk la ci juddoom ci jikkoom ci jëfam ak ci njàngaleem ci lu jëm ci juddoom gisoon nanu ne kenn mësula juddoo ni yeesu ndaxte ci janq la juddoo ci kàttanu xelum yàlla mu sell mi gisoon nanu it ne yéesu kenn rekk la ci jikkoom ndaxte mësula am keneen ku judduwaale jikko ju sell ni moom te it yéesu amul moroom ci ay jëfam ndaxte kenn mësula def kéemaan yu mel ni yi mu def moo mën a wax benn baat rekk te ñi feebar di wér seytaane ak i rabam daw te bàkkaar deñ ràññee woon nanu it ne yeesu kenn rekk la ci njàngaleem gisoon nanu loolu ci émission bi weesu ci waxtaan wi amoon ci diggante yéesu ak benn kilifa diina bu tudd nikodem yeesu won na ko ne su fekkee ne xelum yàlla yeesalaatul xolam du mën a tàbbi mukk ci jataayu aji sell ci looloo taxoon boroom bi yeesu ne nikodem ak bépp doom aadama itam faawu ngeen judduwaat tey jii nag dinanu déglu ni almasi bi yeesu waxtaane ak keneen ku wuute lool ak kilifa diine googu di nikodem nikodem yawut la woon waaye ki nu a gis tey ci sunum njàngale mi du woon yawut nikodem góor la woon te kinu nu war a gis tey jigéen la te nikodem boroom diine la woon waaye kii boroom bàkkaar bu amoon juróomi jëkkër la woon ci bëti nit kilifa diine gi di nikodem moo gënoon jigéenu moykat ji wante du noonu fa kanam yàlla ndaxte doom aadama yépp a nekk ci nootaangeek bàkkaar muy boroom diine yi mbaa boroom bàkkaar yi looloo tax fawu doom aadama yépp judduwaat ci kàttan gu jóge ci kaw léegi nag nanu dellusi ci linjil ngir déglu waxtaan wi amoon ci diggante yéesu ak jigéenu maykat ji dëkkoon samari samari mooy benn diwaan bu nekkoon ci diggante yude ak galile ci réewum yawut ya ñu bare ci waa samari ay làkkat lañu woon kon yawut ya tegoon nañu leen ay yéeféer ba tax ñu noonook ñoom waaye yéesu almasi bi moom du gënale ndaxte yàlla du gënale yeesu ñëw na ci àddina ngir seet te musal bépp bàkkaarkat bu bëgg am xol bu bees te sell looloo tax yéesu rusul woon a waxtaan ak jigéenu samari jooju amoon juróomi jëkkër kon léegi nag nanu déglu li ñu bind ci linjilu yowaana sar ñeent mbind mi nee bi yéesu di dem galile waroon na jaar ci diiwaanu samari noonu mu agsi ci wetu dëkku sikar ci tool bi yankoba mayoon doomam yuusufa foofa la teenu yankoba nekkoon di noppalu ndax coonob tukki ba ca diggu bëccëg la woon noonu jigéenu waa samari ñëw di root yeesu ne ko may ma ndox ma naan fekk booba nag taalibe yéesu ya dañu demoon ca biir dëkk ba di jënd lu ñu lekk jigéen ja tontu ko ne yow nga yawut man may jigéenu ju dëkk samari nan nga ma mën a ñaane ndox jigéen ja wax na loolu ndaxte yawut ya bokkuñu woon ak waa samari ndab yu ñuy lekke noonu nag yeesu tontu ko ne soo xamoon li yàlla maye xam ki lay ñaan ndox kon yow ci sa bopp yaa koy ñaan te moom dina la may ndoxum tund jigéen ja ne ko sang bi teen bi xóot na te amuloo baag kon fooy jële ndoxum dund xanaa kay xalaatuloo ne yaa gën a màgg sunu maam yankoba moom mi nu gasal teen bii mu naan ci moom aki doomam wëgg cig juram yéesu wax ko ne ku naan ci ndoxum teen bii balaa yàgg mu maraat waaye ndox mi may joxe ku ci naan du marati mukk ndaxte day nekk ci moom bëtu ndox buy ball di joxe dund gudul jeex noonu jigéen ja daldi ko ne sang bi may ma ci ndox moomu ngir ma bañ a tee mar bay ñëw ci teen bii di rot yeesu ne ko demal woowi sa jëkkër te ñëw jigéen ja tontu ko ne awma jëkkër de yeesu ne ko wax nga dëgg ne amuloo jëkkër ndaxte amoon nga juróomi jëkkër te ki nga nekkal léegi du sa jëkkër li nga wax dëgg la jigéen ja ne ko sang bi gis naa ne ab yonent nga nun nag naka jekk sunuy maam ca tund wee ngay séen lañu daan jaamoo yàlla waaye yéen yawut yi dangeen ne yerusalem lañu war a jaamoo yàlla yeesu ne ko jigéen ci gëmal lii ma lay wax dina am jamono joo xam ni du ci tund wële te du ca yerusalem ngeen di jaamoo baay bi yéen waa samari xamu leen li ngeen di jaamu nun yawut yi xam nanu li nuy jaamu ndaxte kiy musal àddina ci yawut yi lay jóge waaye jamono dina ñëw te agsi na ba noppi jamono joo xam ne jaamukat yi dëgg dinañu jaamu baay bi ci xel ak ci dëgg ñooñu nag ñooy jaamu baay bi ni mu ko bëggee yàlla xel la kon ñi koy jaamu war nañu ko jaamu ci xel ak ci dëgg jigéen ja ne ko xam naa ne almasi bi maanaam Christ dina ñëw te bu ñëwee dina lu leeralal lépp Yeesu tontu ko ne maa di almasi bi man mi wax ak yow noonu nag taalibe yeesu ya dellusi gis muy wax ak ab jigéen ñu daldi jaxle lool waaye kenn ñemew ko woon ne looy laaj walla lu tax ngay wax ak moom noonu jigéen ja wàcc fa njaqam daldi dem ca dëkk ba ne leen kaay leen gis nit a nga fee ma wax lépp lu ma mës a def ndax kooku du almasi bi noonu waa dëkk ba jog jëm ca yéesu bi jigéen ja ne waa dëkk ba wax na ma lépp li ma mësa def ñu bare gëm nañu yeesu ñu daldi dikk ñaan yéesu mu dal ak ñoom yéesu toog fa ñaari fan ñu bare gëm ko ndax li mu doon wax ñu ne jigéen ja léegi gëm nanu te du li nga wax a tax waaye li nu gisal sunu bopp tax te xam nanu ne dëgg-dëgg kii moo di musalkatu àddina si fii la nettalib jigéenu samariyam ci lu wér nettali am solo la ndaxte day wone ni jenn jigéenu moykat ràññee ne yéesu mooy musalkat bi yàlla wàcce waaye ci njaalbeenu waxtaan wi jigéen ji xamul woon ki doon wax ak moom mu teg ko ab yawut rekk ni yeneen yawut yi waaye ci biir waxtaan wi yéesu wax ko lu nit kese mënula xam ba tax mu gis ne kii kat wuute na ak nit ñi ab yonent la wante dem na sax ba gis ne yeesu mi doon wax ak moom ëpp na yonent kese mooy almasi bi yonent yépp yëgle woon di musalkatu àddina si kon gis nanu ne ndegam jigéen ji ràññe woon na ne nit ki toog ci pindu teen bi te di wax ak moom mooy almasi bi mu daldi fa wàcc njaqam daw ca dëkk ba ne leen kaay leen gis nit a nga fee ku ma wax lépp lu ma mës a def ndax kooku du almasi bi gannaaw loolu nag gis nanu ni waa dëkk ba génne jëm ca yéesu ñaan ko mu dal ak ñoom noonu yeesu toog fa ñaari fan jàngal leen ni ñu mën a ame xol bu sell ba nekk ay jaamukati yàlla ci xel ak ci dëgg naka noonu mbind mi nee na ñu bare gëm ko ndax li mu doon wax noonu jigéen ja ñu ne ko léegi gëm nanu te du li nga wax a tax waaye li nu gisal sunu bopp te xam nanu ne dëgg dëgg nit ki moo di musalkatu àddina si léegi nag ci jot gi nu dese tey nanu jëm kanam ci linjiil ba gis li xewoon ay fan yu néew gannaaw ba yéesu tàggoo ak waa samari dinanu gis ne ñépp nanguwuñu ne yéesu mooy musalkatu àddina si kon ci linjiilu luk saar ñeent mbind nee na yeesu dellu diwaanu galile fees ak dooley xelum yàlla te turam siiw ca diwaan booba bépp muy jàngale ca jàngu ya te ñépp di ko tagg yeesu dem nasaret fa mu yaro te ca bésu noflaay ba mu dugg ca jàngu ba ni mu ko daan defe noonu mu taxaw ngir jàngal mbooloo mi ñu jox ko téereb yonent yàlla esayi bi mu ko ubbee mu gis bërëb ba ñu bind aaya yi xelum yàlla boroom baa ngi ci man ndaxte moom ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi xebar bu baax bi dafa ma yónni ngir ma yëgal jaam ñi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot tey yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi bi mu jàngee aaya yooyu ba noppi mu ub téere bi delloo ko ki koy denc toog ñépp ña nekkoon ca jàngu ba dékk koy bët noonu mu daldi ne tey jii loolu mbind mi wax mat na bi ngeen koy déglu ci wax ji la yeesu jéeñe boppam almasi bi di musalkat bi yonent yàlla esaay bindoon ci mbiram juróom ñaari téeméeri at lu ko jiitu waaye yawut yi dëkk nasaret mënuñu woon nangu ne yeesu mi yaroo ci seen biir mooy musalkatu àddina si ki yàlla yónni moo tax ñu xeeb ko naan ndax kii du doomu yuusufa waay waaye yeesu artu woon na leen ngir ñu bañ a xeeb musalkat bi leen yàlla yónnee wante mbind mi nee na bi ñu déggee wax yooya ñépp ña nekkoon ca jàngu ba daldi fees ak mer noonu ñu jóg génne yéesu dëkk ba yóbbu ko ca mbartalam tund wa ñu sanc seen dëkk ngir bëmax ko ci suuf waaye moom mu jaar ci seen biir dem yoonam noonu la waa nasaret doon fexee rey yéesu lu taxoon ñu bëgg ko rey nag ndaxte yéesu dafa tegoon boppam almasi bi sut yonent yàlla yépp loolu rekk a taxoon ñu xeeb ko di ko fexe rey waaye mënaluñu woon yéesu dara ndaxte waxtu deewam jotagul woon te nag wolof njaay dafa wax ne garab gay doon pénc lawbe du ko gis ba di ko gor kon nag mbokk yi nan lanu mën a tënke sunu njàngum tey nii dégg ngeen tey ñaari nettali ci ñaari mbooloo ñaari mbooloo yooyu dégg nañu ni yéesu tege woon boppam almasi bi waaye seeni tont ci lu jëm ci loolu wuute woon na lool ci bu jëkk gis nanu jigéenu samara ji yéesu dajeek ca teen ba dégg nanu ni jigéen joojo ak waa dëkkam nangoo woon wax yéesu ak mbég te ñu gëm ne yéesu mooy almasi bi di musalkatu àddina si waaye ci sunu ñaareelu nettali gis nanu waa nasaret yi daje ca jàngu ba ñoom dañu xeeboon wax yéesu te mënuñu gëm ne yéesu mi yaroo ci seen biir dëkk mooy almasi bi noonu gis na nu tey ni bàkkaarkat yi dëkk samari nangoo woon ne yeesu mooy musalkat bi jóge asamaan waaye boroom diine yi dëkk nasaret ñoom nanguwuñu ko yow muy déglu tey nag kan ci ñaari mbooloo yooyu nga gën a niru ndax danga mel ni waa samari yi nangu woon yeesu ni seen musalkat walla bokk waa nasaret yi nga gën a niru ñoom ñi bañ a nangu ne yéesu mooy ki yàlla wàcce ngir musal bàkkaarkat yi kan nga gën a niru déglu leen li mbind mu sell mi wax ci mbirum yéesu almasi bi mu ne leer gi feeñ na ci biir lëndëm gi te lëndëm gi jàpp ko ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñam nanguwuñu ko teewul ñi ko nangu te gëm ci turam may na leen ñu am sañ-sañu nekk doomi yàlla dëkk ci jataayu yàlla ba faw amin kon nag fii lanu leen di tàggoo tey di leen jox dox daje njàng mi ñëw bu neexee yàlla ngir gis firnde yi yeesu wone ngir ñépp xam ne mooy musalkatu àddina bu wóor bi su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 saint yoonu njub BP Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te xalaat bu baax ci li waa samari yi seede woon ci mbirum yeesu bi ñu naan dëgg dëgg nit kii moo di musalkatu àddina si